Baol info point net moo leen di jox ay xibaar yu gaaw te wóor leen ak jàmm ñu ànd xëy yér yéenekaay ñu xëyantoo yéenekaay gi di Rewmi mu xëy di xibaar naan ñu caafa mu xëm ci coalition Yewwi Askan Wi ndax coalition Yewwi Askan Wi seen liste ci département bu Ndakaaru dañoo wax ne respecté wuñ li nga xam ne mooy parité bi loole moo tax soo muy tuule dinañu ko daal di gàntal Déthié Fall ak Barthélémy Dias ak ñi nga xam ne ñoom la ñu àndala niki démb ci ngoon ne ñooy direction des nag mënuñu ko nangu yi du ñu ko nangoo lekk yéene kaay gi de la di ñu xibaar naan bu ñu waxante dëgg liste bi nga xam ne coalition Yewwi Askan Wi jébbale nañu ko ci département bu Dakar respecté li nga xam ne mooy parité te nag lu jëm ci wàllum parité bi dafa am lu leer nañ loo xam ne loi bi daf ko see wax doomu Sampol Dias bi di Barthélémy Dias nee na direction des élections ñoom ñu bëgg a indi ay nju njaac ak i tappale ci li nga xam ne mooy seen liste na leen leer ko ko waxee war na koo gëm yéen kaay gi di bés bi nee na société civile bi ñoom ñoo ngi def ay médiation yéen kaay gi di Vox ñu xëy fekk fa professeur Ngouda Mboup xelam màcc jëm ci wàllum yoon daat nay wax ne élection locale yi nga xam ne moom la ñu génn ci commune bu Mbacké liste Benno Bokk Yaakaar respecté wuñu woon li nga xam ne mooy parité bi te nag dañu ko bàyyi mu jàll te atum 2019 bi ñu clôturé dépôt candidature yi procureur maanaam moo tax ñi nga xam ne des élections mënuñoo nangu lii nga xam ne moom la waa coalition Yewwi Askan Wi bëgg moom professeur Ngouda Mboup daan nay wax ne bu kenn indi ay jafe-jafe ci réew a gi xëy di ñu xibaar naan ñu coalition Yewwi Askan Wi jamono ji ñoo ngi ndax nag nee nañu Macky Sall du ñu ko bàyyi mu nekk ci réew mi di def lu ko neex Barthélémy Dias nee na Macky Sall lenn lu nekk jéem na ko ci Ndakaaru munta gañe loole moo tax mu bëgg indi ay njunjaaca a leer nañ ñi yéen kaay gi xëy dañu xibaar di Vox Populi ak Le Quotidien nee na ñi nga xam ne ñooy waa coalition Benno Bokk Yaakaar ni ki démb ñoom tim jaano nañu ak taskatu xabaar yi lu ñu yëkkul Barthélémy dañu ko fàtte ñoom Alioune Ndoye ñoom Bamba Fall ñoom Seydou Gueye ñoom Sahara Iyane Thiam ak ñoom Amadou Ba ñoom Farba Ngom nee nañu ñi nga xam ne ñoo fi nekk di balballu danañu leen xaar ci terrain bi defante ko ak ñooma ndax ëppale li amoon ñu direct news xëy duñu xibaar naan ñu Khalifa Sall na Khalifa Sall rancunier ku soxor la ginnaaw ba mu amee jafe-jafe ci jëm ci wàllum caisse d'avance mairie bu Ndakaaru kaddu yi ma sa yëkkati woon na Khalifa Sall ak sàggante moo tax li ko dal dal ko loolee ba léegi Khalifa Sall mënu ko wanaasoo waaye tamit Ousmane Sonko mooy ab complice ama waxi maître Moussa Diop la ma ngi ci direct news yéen kaay gi dalee si ko ñu xëy fekk fa Serigne Mansour Sy Djamila moom ti mer ba mara fukk ak juróom benneelu position bi yéen kaay gi de Le Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu coalition Yewwi Askan Wi jamono na ci ñoo xam ne dañoo mer ba mara détaillé Cheikh Bamba Dièye dafa mer Moustapha Guirassy dafa mer Cheikh Tidiane Dièye dafa mer journal bi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu ñi nga xam ne ñooy waa Benno Bokk nan la ñuy def ba def seeni investiture am ay jafe-jafe loole ab défi la boo xam ne coalition présidentielle bi war nañu ko lijjante waaye tamit war nañoo lijjante ana nan la ñuy jàmmarloo ak ñi nga xam ne ñooy waa coalition Yewwi Askan Wi yéen kaay gi de La Tribune xëy wax ci asu soxna mi ñàkkoon bakkanam ay bés yi nga xam ne moom la ñu génn ci hôpital Amadou Sakhir Mbaye ba ci Louga journal bi nee na sage-femme yi nga xam ne ñoom la ñu jàpp ne seen loxo laale na ci démb nekk dogal bi daat nay wadd ñett si ñooma tëj nañ leen lu toll ci juróom benn wéri kaso yoo xam ne duñu ko tëdd am na si ñett ñoo xam ne toppee wuñu leen dara yéene kaay gi di réew mi ko di jeex xëy duñu xibaar naan ñu Sator Mbaye ministre conseil dafa yóbbu benn benn garde corps bu tudd Ibrahima Ndiaye ne na Ibrahima Ndiaye moome nag daf lu jëm ci ay terrain ci diwaanu Maris moom Sator Mbaye nee na lu toll ci 36 millions la ko jox ngir mu lijjantil ko ñetti terrain fi nga xam ne mooy maris waa jii di garde corps bi daan na mes na menteña bi ñu ko yóbboo tribunal ba moom garde corps bi wax na lu mel ni mité nee na lu toll ci ñetti poche la waxoon sa torba yi ci diwaanu maris ndax leer na ko ne na kër munta jar 36 millions ci maris ba tey ci journal bi tribunal bi nee na nañu ko tëj lu toll ci benn weeru kaso yéene kaay gi délibération Ousmane Sonko niki démb wax na lu mel ni midi préfet bu Ziguinchor nee na ko nag xàll yi ak bayaal yi ak yoon yi nga xam ne soppi naa seenu tura loole nag mënoo ci dara dinaa ko def ndax décision la boo xam ne conseil municipal bi ñoo ko jëla moom maire bu Ziguinchor nee payoor bi nga xam ne moom lañ ko war a fay weer wu jota du ko laal lancement semaine du citoyen ni ki démb la ko xamle réew mi quotidien wax ci rapport OFNAC yi bëri na ci loo xam ne ci ay rapport ma ngi ci table procureur waaye nag ñi nga xam ne ñoom la ñu joxal bi baaraamu tuuma dañ leen di faral di protéger moo tax mbir mi du mujj fenn toll si junni ak juróom ñaari téeméer ak juróom fukk ci plainte yoo ne ma nga ca OFNAC na Mamour Diallo di Aliou Ndoye si ñoom ji dañu leen a épinglé kaay nee ñi nga xam ne ñooy waa OFNAC santaane nañ ba tàyyi procureur ngir ñu ubbi say enquête waaye nag ba léegi France dali xëddina yéen i kaay gii di sunu làmb nee na li ñu nemmeeku ci làmb ji bëri na ay mbër yoo xam ne bu ñu waree bëre dañuy am ay gaañu-gaañu loolu nag ñi seen xel màcc jëm ci wàllu wi ñoo ngi ko fa ñoo ngi koy faram-fàcce ak di ko leeral ci surnal bi